sango yi yor wàllu transport muy le ministre Mansour Faye waaye tamit ànd ak le ministre Samba jobenka Ka mi yore wàllu ndimbalante mi ci biir gouvernement bi bi ñuy ñëw ministre de la sante boole nañu ak directeur de cabinet ak ay directeur am yu bari ñu ànd tamit ak le général Mamadou bi di commandé sapeur fekk fii le gouverneur de la région de luga ak mbooleem chef de service yi nekk ci gox bi moo xam gendarmerie la commandant légion gendarmerie bi yore diwaan bi di Ndar ak Louga moo xam commissaire de police bi la moo xam ci wàllu hôpital directeur régional de la santé la moo xam directeur hôpital bi la ak mboole seen service su ministère yi bi ñuy ñëw jokkoo nañ ak euh, suñu kilifa di son excellence monsieur le président de la république Macky Sall muy naqarlu di mettitlu tiis wi dal ci kaw Sénégal di yëkkati njaalam di ko jottali ñëpp ñi nekk ci biir réew mi waaye tamit di ko jottali ñi nga xamante ni seen mbokk ak seen ay jegeñaale dañ fi bàyyeekoo di masawu ñi ci am ay gaañu gaañu di ñaan suñu borom mu yëkkati seen bopp mu fëgg seen bopp. ñu dellu ci seen ay sago balaa yàgg dara lii fi xew tey ci suba ci booru 7 heures 40 fële di tolloo ak euh, forage yu jëlër jëlërlu sil gis nañ ni lu mat juróom-ñaar fukki nit ak juróom benn ñoo nekkoon ci oto bi jóge Cubbalel laaw jëmoon Ndakaaru bi secours yi ñëwee di sapeur pompier yi ànd ak gendarme yi gis nañ ci saasi bi accident bi amee ne am na ñaar fukki nit ak ñaar yu ci ñàkk seen bakken ci saasi ñu gis ni ñenti xaleel yu tuuti bokk nañ ci ñeneen ñi ci des am ay gaañu gaañu bi ñu leen indee diggante Louga ak Ndar fii ci loppitaal bi laata ñuy yegsi am na kenn ku ñàkk bakkenam waaye fële ca ndarit am na kenn ku ñàkk bakkenam lim bi toll ci ñaar fukk ak ñeent ñu am ci wetu limu ñi faatu di ñaar fukk ak ñeent ñu am juróom fukki nit ak ñaar yoo xamante ni dañ ci am ay gaañu gaañu loolu nag dafa laaj ñu taxaw ci tuuti ab diir ngir leeral ni carte grise oto bi mooy këyitu d'identité oto bi bi wane oto bi numéroom ak ñaatal nit la war a yàpp ak ban at lañ ko defar ak bépp xibaar bu soxal oto bi ak dund ak ni mu nekkee di daw gis nañ ni juróom benn fukki nit képp ñoo waroon nekk ci oto bi waaye li ñu gis ci oto bi ci ñi gaañu ak ñi faatu yegg nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróom benn loolu tubaab di ko wax surnombre maanaam oto bi defoon na lu ëpp li mu war a yàpp loolu nag euh, gisoon nañ ci weeru janvier bi ñu weesu bi accident bi amoon Sakal ak 6 kilos amee premier ministre ci ndigalu président de la république woote woon na am ndaje bu ministère yi ko seq yëpp ñëw teew waaye tamit suñu mbokku transporteurs yi ak suñu mbokku chauffeurs yi ñëw teewee ko biñ ci waxtaanee ba noppi gisoon nañ ni am na ñaar fukki dogal ak ñett yu ci waroon soqeekoo ngir wàññi accident yi wala sax accident bañatee am moo doon li sababu waxtaan woowu di sababu ndaje boobu biñ ko tàmbalee ak léegi gis nañ ni accident yi. am na lu bëree bëri lu ci wàññeeku woon ba tey bi ñuy wax nii ba tey accident bi am nii tey ci suba bokkoon na ci dogal yi ñu jëloon mooy oto yi yàpp nit ñi duñu dawati guddi loolu nag gis nañ ni oto bii tey accidenté bokkul ci oto yi nga xam ni dinañ daw guddi te biñ ko saytoo seet ko gëstu ko gis nañ ni dawul guddi dafa jóge Cubelel laaw ñëw ba Richard Toll mu fanaan fa xëy suba war continuer yoonam jëm ci Dakar malheureusement dafa am surnombre te loolu jaaduwul loolu question la boo xamante ni liggéey bi ñi ngi koy def lu mu rafet rafet jur ay résultats am na loo xamante ni des na te war nañ ko continuer te loolu dinañ ko wëyal te suñu mbokku transporteurs yi ak suñu mbokku chauffeurs yi ala kulli haal te ñàkk lépp luy war a mën a ñoŋal bakkanu doomu aadama wala yaramam kooku il faut ñu jël ko comme mesure donc 23 mesures yi ñu applique yi. Euh, tukkee woon ci conseil interministériel bi te premier ministre ak président de la république saxal ko ala kulli haal il faut ñu continuer di ko wéyal may sant nag bu baax service yi nga xamante ni ci turu président de la république ñoom ñoo gaaw ñëw euh, taxawu ñi amoon ay gaañu gaañu ci accident bi muy sapeur pompier muy gendarmerie waaye tamit muy service su ministère de la santé rawatina hôpital bi nekk Louga waaye tamit hôpital bi nekk fële ca Ndar may leeral ni minutes yi topp rek ci accident bi minutes yi topp rek ci accident bi dañu déclenché li ñuy wax plan blanc loolu li muy tekki mooy ñëpp ñuy liggéey ci hôpital bi dañ leen di woowaat ñu nekk en alerte lépp lu état am ci gox bi muy ambulance muy euh, lépp luy jumtukaay lu ñu itteewoo ngir mën ci doxal euh, liggéey bi ni mu waree ba mën a indi saafara ak tamit euh, ñi am ay gaañu gaañu ñu toppatoo leen ba faj leen loolu plan blanc moom moo koy indi moom moo koy jur. plan blanc boobu nag bi ñu ko déclenché gis nañ ni ministère hôpitalu Louga bi ak hopitalu Ndar bi médecins yi gàcce ngalaama ñoom infirmiers yi gàcce ngalaama ñoom. ñëpp ñi leen di jàppale tamit ci liggéey bi gàcce ngalaama ñoom ñoom ñëpp teew nañ taxawu nañu liñ leen indil ci ay euh, nit yi nga xamante ni dañu gaañu ci bile accident. fii ci fi waxtu wi may waxee ak fii ci Louga gis nañ ni am na fanweeri nit yuñ fiy faj fële ca Ndar am na fukki nit ak benn yoo xamante ni tamit ñi ngi leen fay yóbbu woon di leen faj euh, ñi ngi. mettit lu loolu am na kenn ku faatu foofu waaye am na tamit keneen ku faatu foofu yóbbu limu ñi faatu ci ñaar fukk ak ñeent te tey am nañ juróom fukk ak ñaar yoo xamante ni ñi ngi wéyandi di leen toppatoo ñi ngi wéyandi di leen faj foofu nag ñu jaajëfal tamit bu baax ministère de la santé ndax ci ndigalu son excellence monsieur le président de la république Macky képp koo xamante ni gaañu nga ci euh, accident bi euh, dinañ la taxawu dinañ la faj accompagnement bi ci war yëpp même sur le plan Euh, psychosocial dinañ ko def maa ngi ànd ak le ministère le ministre Samba Ndiobène Kane mu yor wàllu ndimbalante mi am na tamit ay ndigal yu mu jot ci président de la république ngir taxawu famille ñu faatu waaye tamit ngir taxawu ñi nga xamante ni ñoom ñoo aju ñu faj leen léegi nii waaye su faj bi naree continuer tamit am na taxawu boo xamante ni dinañ leen si jàppale loolu mooy li ñu indi woon fii tey ci euh, Louga ngir euh, fekkee secours yi jàpp ci organisation bi waaye tamit xool li mbir mi yittewoo ci saa si ñu taxaw ko ngir faj ko may rafetlu nag état wu Sénégal ni mu évoluer jëm ci wàllu santé parce que président de la République santé dafa nekk ci secteur prioritaire ku ne gis na hôpitaux yu bari yi mu tabax ci biir réew mi boo demee Sédhiou boo demee Touba boo demee Kédougou boo demee Kaffrine hôpitaux yooyu yëpp nekkoon na ay hôpitaux yoo xamante ni ñiñ leen mën a méngale ci hôpital ndakaaru rek la amoon te gis nañ léegi ci biir gox yi euh, am nañ fa ba su jéyee amee mara day tali ci saase euh, matuwaay yi ci war yëpp dañ koy jël ngir mën na leen taxaw am loo xamante ni dañ koy tuddee plan blan moom laa doon leeral léegi plan blanc boobu li tax mu gën a mën a dox mooy déploiement maanaam wesaare gi ñuy wesaare service boobu ñuy tuddee SAMU nga xam ni li ko tax a jóg mooy bar lu barabar ci doxalin waaye lu barabar ci taxawu saa yu ko doomu aadama yi itteewoo plan euh, déploiement SAMU boobu moo waral tey ñu am SAMU zone nord SAMU zone nord liggéeyam ak taxawaayam moo tax bu doon ay at ci ginnaaw lii am nii tey ñëpp dañ leen di yóbbu ndakaaru rawale leen fa waaye tey ak liggéey bi état bi def ak liggéey bi président de la république Macky Sall def jëmale ko ci secteuru santé loolu moo waral bi mbir mi amee bi ñu wootee ndaxte dafa ma wax ni ma lépp luy moyen état nañ ko mobiliser ngir taxaw ñi nga xamante ni dañu am gaañu gaañu ci saase ma jokkoo ak njiital armée bi mu mettre à notre disposition benn hélicoptère ni su fekkente ni aju na ñu jëlee ay nit fii Louga indi leen Dakar am na hélicoptère boo xam ne en trente minutes dina yegg si Louga ci euh, biir stade bi su ajoo ñu jël ay nit yóbbu leen ñu yóbbu leen ma jokkoo ak le gouverneur de Louga waaye jokkoo tamit ak kilifa yi yor wàllu kër docteur laaj leen ñu ni ma sami bi ñu indi ci zone nord bi tax na soxlawuñu benn yoon di jëlee nit yi fii ci Louga di leen yóbbu Ndakaaru dañ leen di tas diggante Louga ak Ndar waaye soxlawul ñuy jël benn nit di ko yóbbu ci Ndakaaru loolu nag ay jéego la yu rëy yoo xam ni état bi dox na ko ci euh, njiitalu son excellence monsieur le président de la république Macky ñuy jaajëfal personnelu santé bi seen taxawaay ni mu rafetee waaye ala kulli haal wàllu sécurité routière mënuñu cee ñàkk bañ a ñëwaat naam mesures yi ñu jëloon am na ay jéego yum ñu doxloo am na ay résultat yum ñu indil waaye am na lu des loo xamante ni sa nit wala ki ngay àndal di liggéey wala ngeen séq àdduna mu mel ni acteur secteur euh, transport yi di suñu mbokk chauffeurs yi ak transporteurs yi nit buy lu mu waaxu waaxu léeg-léeg dina jaadu nga gën koo puus mu gën a waaxu mais il faut pour bu ñu bëggee régler problème bi am na yoo xamante ni mënul am masla mënul am waxtaan woo xamante ni lu lu dul ni lépp luy mën a indi accident yu mel nii dañ ko war a bàyyi surnombre baaxul yeneen mesures yi ñu ngi koy appliqué mais surnombre yi jaajëf fël nañu eh, gàcce ngaalaal ma leen police ak gendarmerie ñu ngi def liggéey bu solo wax naa léegi ci kàllaama nasaraan ni diggante démb ak tey gendarmerie bii nga xamante ni fii ci euh, zone nord ci région de Saint-Louis la dépendre def nañ diggante démb ak ren juróom ñaari téeméer ak juróom ñeent fukk ak benn ci ay contrôle indi ñu euh, taxawal fukki oto ak juróom benn yoo xamante ni miñ doon dawee jaaduwul donc liggéey bi mi ngi am liggéey bi mi ngi woy mais faw aussi Euh, ñii di secteur transport bi ñu gën leen impliqué xamal leen ni ba doomu aadama dafa foor ni ma ko waxee sànq ci kaw ci réunion bi oto mun nañ ko defaraat bu yàqoo mën nga jënd sax bu fekkente ni yàlla jox na la wërsëg bi waaye ba kenn doomu aadama rëy na rëy goo xamante ni médecins yi jàmbaar lañu ñu ngi leen di jaajëfal waaye gisaguñu ku ñàkk bakkanam doomu aadama bu ñàkk bakkenam ñëw ci médecin mu indilaat ko bakkanam wala mu ñëw ci sapeur pompier mu indilaat ko bakkenam ginnaaw bakken ñun munuñu ko defar keneen mënu ko defar ñun ñi seq àdduna seq liggéey bi il faut que lépp lu mu laaj ngir ñu sàmm bakkanu doomu aadama yi ñu def ko loolu kon moo tax secteur transport bi nañu xam ni ala kulli haal mbiru surnombre bi kooku mënul am euh, benn li tubaab di wax compromis loolu mënu ci am il faut que mesures yi ñu continuer di ko appliquer di leen sant di leen gërëm. fii présidence bi avant amoon pour prendre en charge li nga xam ne moom bi également pour le wala maa ngi lay remercier xam nga xam nga euh, léeg-léeg loolu lay wax damay wax nii bu mbir amee nañu xool li nga xamante ni mooy solo si euh, ñu dem ci directement lii ñuy wax nii tey xañ na buñ doon xool dina am yeneen problème sax yu am ci hôpital bi buñ doon xool même seen kër liggéeyukaay même buñ doon xool amul benn këru liggéeyukaay boo xamante ni di nga fa dem te problème du fa am wala jafe-jafe du fa am mais lii ëpp solo mooy bu problème mu amee nañu xool lan moo waral problème bi ak lan moo koy saafara wax bii nga laaj nii. abordé nañ ko ci kaw muy wàllu service urgence bi su fekkoonte ni service urgence bi dafa am benn implication wala dafa am benn conséquence wala dafa am dara lu mu jur ci wàllu prise en charge bi kon man sama bopp su may wax xañ na dinaa ci wax xam nga tey hôpital dañ koy yokk service urgence am na tey ci hôpital bi mi ngi fonctionner normalement mais même bu ñu amee lu baax gën ko yokk gën ko defar day jaadu loolu moo waraloon service urgence am na fii mi ngi fonctionner normalement mais à côté mu am beneen service urgence bu bees bu ñuy tabax donc lu bees la lu am lu nekk ci wetu lu am ba noppi léegi nag service urgence boobu bi ñu posé question bi am na benn médecin bu posé question nii suñu sañoon service urgence bi ñuy tabax bu bees ñu gën a gaawal liggéey bi gën ko euh, gën a gaaw a yembal ki jiite hôpital bi tontu na ci kilifa yi yor wàllu santé bi tontu na ci entrepreneur bi ñu ci doon liggéeyal xañ na am nañ ci réero ak ñoom ba arrêté travaux yi ba résilier contrat bi léegi lancé nañ beneen procédure bu bees boo xam ne dañ ko def ay miniloo pour attribuer de nouveau pour joxewaat chantier bi ngir ñu mën a tàmbaliwaat liggéey bi tey booy liggéey ak nit chantier bi doxul ni nga ko bëggee wala mu sooxee soit da nga koy wax gaawal def li ngay def mu jeex nga pare soit nga arrêté liggéey bi fi mu ne nag décision bi nga xamante ni ñoom jot nañ ko jël laata même accident bi di am mooy arrêté nañ li arrêté nañ contrat bi. Mm. contrat bi résilier nañ ko et ko résilier ba noppi def nañ ko ay minilo dinañ ko attribuer suñ ko attribuer wéyal liggéey bi mais loolu jotewul dara ak accident bi parce que boo leen posé noonu question bi day mel ni dafa am lëkkale bu am diggante service d'urgence bu bees bu ñuy tabax ak li nga xamante ni moom la ñuy liggéey ñi nekk ci hôpital bi wax naa léegi ci sama njëlbeen wax ni ñoom ñoo wax ni. soxlawuñu ñu jële fi kenn di ko yóbbu dakaar wala di ko yóbbu ci beneen gox li muy tekki mooy lépp luy matuwaay état soxlaw ko ngir toppatoo jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñoo gaañu ñu war leen a faj am na diggante Saint-Louis ak Louga Saint-Louis ak Louga même zone la zone nord la donc bu amee accident dañuy xool ñenn ñi ñu yóbbu leen Saint-Louis ñenn ñi yóbbu leen Louga te wax naa léegi ni am na lu ñu tuddee SAMU muy service d' assistance médicale d' nga xam ni dafay gën a baral liggéey bi gën ko gaawal ci zone nord moom moo couvrir Saint-Louis ak Louga donc bi mbir bi amee ñu déclenché plan blanc mobiliser ñëpp ñuy personnel yi mobiliser lépp loo xamante ni matériel la ñii nekk fii ak ndar ni ñoom soxlawuñu ñu jëlee kenn fenn di ko yóbbu feneen hélicoptère wu armée pare woon na bu doon soxla nañ yóbbu Dakar wala ñu yóbbu feneen ci réew mi mais jotuñu ko def et scanner bi ngay expliqué tamit du problème boo xamante ni problème bu am incidence la ci prise en charge bi ndaxte ñi aju woon ñu defal leen loolu ci saa si defal nañ leen ko ndar te même avant ñi ngay ngay poser question bi gouverneur sànq ci réunion bi wax na ni et même directeur hôpital bi moo ko wax directeur de cabinet wu ministre de la santé bi ngi fii teew démb jokkoo na ak le gouverneur te boobu problème bi amul wax ko ni ko tubu scanner bi am na problème matériel nag bu ciy dox bu nekk dina am problème muy oto muy scanner muy tele ba ci seen micro yi ak seen camera yi léeg-léeg moom am problème mais bu dee ci dafa jëm ci wàllu santé lu mu ci gën a gaaw a bar moo gën ba tax na moom xaarul accident di am pour que mu koy waxee bi mu ko yëgee rek daf ko wax directeur cabinet ministre de la santé ñu def commande bi muy benn tube boo xam ne dañ ko war a dugal ci scanner bi te loolu balaa yàgg ci biir ayu bés bi dina yegg si ñu mën a def liggéey mais loolu amul benn sooxe bu mu indi jëmale ko ci ni ñu war a jëlee en charge les différents patients pour wax ni maa ngi jaajëfal pour daaneel suma kaddu ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci hôpital bi parce que gis nañ seen taxawaay bu mat sëkk gis nañ seen yitte waaye gis nañ yërmande bi ñu tabal ci liggéey bi jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo gaañu te wax nañ ni fii ñu toll nii amul lenn lu ñu soxla di ko ni fenn fu jégee zone nord bi diggante Saint-Louis ak Louga lépp lu ñu soxla am nañ ko te directeur hôpital bi wax nañ ni fii ñu toll nii li mu dépensé gul rek ci li ñuy wax intrant jëm ci médicament wala ci xeetu lu ñuy soxla ngir jàpp jàppale ci ñi nga xam ni ñoo gaañu may na ci vingt millions fi ñuy wax nii actuellement donc il y a aucun souci par rapport à l'organisation des secours et alhamdulillah tout se passe bien. merci beaucoup merci monsieur le ministre. waaye ministre